ñun kenn mënuñoo nax ku yàpp sénégalais yi ñun yàbuñu sénégalais yi bay invité koo xam ne du ndaanaan muy toog fii di wax naka su dul noonu ñun duñ liggéeyee noonu kon fees nga dellu sa place toog nga fi nga war a toog tey waaye nag ginnaaw émission bi guddul dañuy dugg rek ci waxtaan wi directement ndax lu ñu war a waxtaanee dafa bari maa la xool seetlu la seetantal la làcce la enquête la ba sa koñ ba ci xarit ba ci say xarit yu ngay àndal guddeeg bëccëg wala ñu lay fréquenté ñu wax ma yaay kan ma woo fii kon maa la woo ah waaye daa mel ni sama kër gi lii ay jinne dañ fay ñëw tey gis naa fi ay ndombo ay kook ay ay ay ay layu lu ne gis naa ko fi donc fu ñu ma njëkkee ak yow mooy ci seet seet da koy def lan mooy seet waaw Jojo dañuy sant yàlla sama soppe di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam ndax ne naa seet dañ koo donn te dañoo ñëw suñu ëttu kër maam fekk fa seet kon lu ñu donn la kon boo ñu laajee ci milieu seet dañ ci sawar lool pour tontu la mhm. ndaxte ne naa seet mooy nit ki jaaxle nga wan ko yoon nit ki nga xam ne dafa gëlëm ba xamatul fu muy dem nga teg ko ci yoon mhm. loolooy seet nit ki nga xam mhm. dafa réer ak nit ki nga xamante ne maanaam dafa nekk ci àddinaam ñu koy yàqal yoonam mhm. nga seetal ko génne loo ko ay sarax mu génne ay saraxam daal di daal di delluwaat mel ni meloon ndaxte ne naa seet li muy def ci nit moo bari ndaxte dafay mel nit ki na ma naan nga seetal ko li nekkoon ci moom daal di deñ bala nit ki xiif bëgg a lekk soxla ku ko jox mu lekk lool boo ko jox boo ko seetalee day mel ni comme yow hmm. nit ki nga xamante danga jixaat daal man jixaat laa tuddee seet dëgg la ndaxte nit daf ma naan soxna Mariama depuis fan maa ngi lay woo di wax bay jooy ma xam ne kon la muy wax kon seet bi kon am na loo xamante ne da def ci nit day mel ne malaat bi feebar rek nga nga nga wax ko lii mooy sa feebar hmm. day xam ne lii mooy feebaram mu topp traitement am kon looloy seet ah, léegi d'accord léegi mën nga maa wax yan xeetu seet ñoo am waaw seet yi am bari na waaw ndaxte gis naa ne xaar am na am na mhm. seet ci latru ci latru maanaam seet ci papier mara def ay tomb waaw dañ ci seet waaw loolu am na waaw seet ci ndox am na waaw seet ci suuf am na mhm. seet ci wàllu ramli am na kon façon seet yi bari na ñun dañuy seet bay seet ci bale ak ndoxu potit yow da nga koy def waaw dama koy def waaw kay mhm. léegi nag da nga fiy toogal place ñiy seet ñëpp parce que invité naa fi sa sa sa sa salbe waaye convaincre ma ci li mu wax ci seet pettaaw parce que ba ma ko ko waxee nanguwul sax ne seet dafa araam convaincre na ma nag en tant que Selbé en tant que seetkat ndaanaan la waaye nu mu waroon défendre boppam ci yéen ñii di seet leneen lu dul alxuraan man damaa bëgg ngeen convaincre ma lan moo tax ngeen koy def parce que tey bu fekkente ne alxuraan dafa araamal seet. wax fii nga toog ay ustaas ñëw nañ fi. seetaan naa am na ustaas yu toog ne ma seet benn ci na la ci yàlla nangu muy xaar yeneen yi ci des yëpp dafa xaraam am na keneen ku fi toog ne muy listixaar muy lu mënta doon seet dafa xaraam bu xaraamul woon boo demee tey ci sëñ Murtada Mbàkke mbaa nga dem ci euh, Tiwaawan dañ lay seetal ban kilifa diina nga fi mos a dem mu seetal la amul tàllal sa loxo ma ñaanal lay wax am na ku toog fi wax ko fi waaye daal li ñuy jàpp daal ba jàpp mooy li saxaar moo dagan yeneen yi daganul waaye xam nañ ne daal pettaaw ak suuf ak leket ak këll et tout nee nañu l'islam daf ko xaraamal dafa xaraam lan nga ma mën a wax ci loolu waaw wax laaj nga question bu am solo ndax nit ñi dañoo xaw a dañoo xaw a gëlëm ci wàllu seet hmm. kon ñun ñiy seetkat yi dañ leen war a gindi hmm. mais seet ci pettaaw dafa xaraam waaw mais leneen lu méngawul ak pettaaw boo ko seetee dagan na seet ci ndox dagan na ndax da ngay tiim ndox mi mu mel ne image nit ki muy ñëw ci yow kon loolu mbirum yàlla la Uh-huh. waaw ngay seet ci wàllu ramli boo defee tomb da lay indil chiffre nit ki ngar xaw li li mooy chiffre lii mooy saraxam te bu ko defee gindeeku uh-huh. kon ñiy wax seet dafa haram amaana alxuraan bind na ko ndax nee seet ci listixaar dagan na uh-huh. te ñun dañuy seet ci wàllu ramli di seet ci listixaar kon ñun buñ seet dafa haram te it alxuraan bi wane na li listixaar araamul kon ba tey problème day posé waat mais pettaaw dafa haram man dama ci doon seet mais dama ko bàyyi ndax wax naa la léegi dama jël wérdu Cheikh Ahmed Tidiane te mhm. méngoowul ak seet ci pettaaw te dem naa ba ci sama sëriñ laaj ko mu ne ma seet araamul ci li ngay yëngatu waaw man sama sëriñ moo la ko wax waaw fi ma joxe sama njébbal waaw moo ma bu fekkee da ngay seet ci loo xamante ne méngoowul ak pettaaw seetoo ci pettaaw ma ne ko déedéet seetoo ci xottu gerte ma ne ko dama ko daan seet mu ne ma bàyyi ko dee ma seetal ci suuf dee ma seetal ci ndox ak wàllu ram dama ci seet kon yow mhm. sa sëriñ la jox ndigal moo ma jox ndigal waa pettaaw bi daal moo xaraam Mhm, ak mais yeneen si des xam nga fii ngay waxee ci télé ngay waxee nag. dëgg la loolu tax ma am fi toog ko. kay parce que après dina am yeneen invité yu fi toog. Mhm, mhm. boo fi waxee loo xam ne ànduñ ci dina ne la soxna soxna soxna Mariama mi fi ñëwoon la mu wax abul. dëgg la moo tax may bëgg rek ngay wax loo xam ni. dañ ko mën dañ ko mën a défendre bu fa keneen ñëwee. nangu nga rek pettaaw moo xaraam. dafa xaraam waaye yeneen yu si des yëpp dagan na. waaw ndax foo xam ne boo fa demee yàlla suñu boro nee na boo demee ci pettaawkat. ñeent fukki guddi boo jullee du koy du ko nangu. kon loolu kon xaraam na dafa xaraam. mais am na ñeneen ñu naan ñu lii dafa xaraam yeneen yi ndox beeg. Mhm. gerte yeeg li am na ñu wax dafa xaram waaw ndox mi li tax nit di ci seet ba mën a gis soxlay nit ki te yow yow da day mel ne comme loo xamante ne dañ la koy dañ la koy dee. Ah. kon loolu buñ ne xaraam na yàlla ñu ko jox. kon ah. bu ñu dof loo. doy na waar daf doy na waar ndax dañuy xool ci wàllu kii di xam soxlay jaam bi. waaw ci wàllu ram li. kon zozo loolu yàllaa ko maye. waaw léegi léegi waaw d'accord mais mhm. mais boo tiimee ndox nii lan la dafa am looy tari pour li ngay pour ngay gis wala day ñëw naturellement rek ci yow wala da nga ànd ak jinne ju lay dee wala nan la lan la lan seet bi lan la. Mhm. nga tiim ndox mbaa nga tiim suuf. kurus dañ ci seet pourtant. bëgg xam waaw. Mhm. lan lan nan nga koy xamee yow nan ngay xamee. dëgg du neex ndax ànd nañu ak ay jinne mais lii ñëw ci ndox ñu xam nañ ne mayu yàlla la. ndaxte man bu ma téemee ndox day mel ni dafa am luy dee sama nopp wokkali wokkali te su ma ko waxee. jibe bi la ndax man damay seet live en direct. te yaakaar naa bu fekkee li doon def ne antuwul kon duñ ci toog di koy def te yàlla dañu ci may nag kuñ seetal mu ne dëgg la. kon loolu mayu yàlla la xam naa ne koo seetal dëgg la. Mhm. loolu xam naa ko. Mhm. nee naa la moo tax nga ñëw fii tey. Mhm. mais nan ngay gisee lan moo lay gis loo loolu laa bëgg a laaj. waaw man dañoo dama ànd ak jinne te loolu may dee may wax Ah. man dama am jëkkëru jinne moo may dee may wax. Eh? waaw. am nga jëkkër di normal nit nii. waaw waaw am naa normal am naa bu jinne. jinne bi du dóor ku normal ki di ah ki normal ki itam dafa am lu mu àndal ndax moom itam sëriñ la. ah waaw. njaboot. waaw benn. <laughs> am tànk. benn ngeen yéex nañ koo am nag mais sant rek. ah jinne gi dafa xeex ba sonn. Mhm, dafa xeex ba sonn. sa jàmbaar la. Mhm, la ndax man yor ma yombul dama diis gan moo tax yor ma yombul. Mhm. waaye léegi lii laal la lii